asalaamaaleykum wa rahmatullah balaa may joxe message bi rek bëggoon euh, nuyu imam ratib bu grande mosquée bu Dakar di nuyu tamit grand sëriñ bu dakaar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ay góor wala jigéen ñëw nañu jullisee fii ci grande mosquée bu ma nuyoo imam grande mosquée de Dakar rek mel na ni nuyu naa imam yëpp ak fu ñu mën di nuyu naa kilifa diine yëpp ak fu ñu mënti nekk mel na ni tamit bu ma nuyoo sénégalais ak sénégalaises yi fi ñëw julli si mel na ni nuyu naa sénégalais yépp jóg tey dem julli ji ak fu ñu mënti jullee ci biir Sénégal ak ci biir àdduna bi di sant yàlla bu baax a baax a baax gannaaw bum ñu mayee ñu jóge ci xat-xatu élection yoo xam ne xëy na ñun ñëpp ci njëlbeen tiitoon nañu ci waaye ñu dugg ko ci weeru koor génn ko ci weeru koor tamit di ci sant yàlla bu baax ci ñum lu mayee ñun ñëpp Sénégal ndax Sénégal moo ko moom ndam li nga xamante ne doonte xëy na am na amoon tiis ak njàqare yàlla may nañu ba ñu génn ci jàmm am élection boo xam ne àdduna yëpp jaaree na fa gën a naw Sénégal loolu nag lu ñu ko may mooy ñaan yi nga xamante ne nit ñu baax ñi fi jiitu ñu ngi ko fiy ñaan bi ci ñaan yi nga xamante ne ñi fi nekk tey dinaa fi la di yokk seen ñaan rawatina ci weeru koor gi di zikri di jàng ay xasida walla ñuy wasifa wala ñuy dem ci jàngo yi walla ci yeneen anam di ñaanal réew mi di ñaanal waa réew mi ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax nag gannaaw bi xat-xat yooyu tombeek weer wi nga xamante ne weer la boo xamante ne yàlla def ci ful lépp loo xamante ne ñaan la te gaaw nangu ko lool di ñaanal ñi nga xamante ne nag ñooñu ñooñu ma tudd noonu muy kilifa diine yi kilifa aada yi muy sénégalais yeeg sénégalais yëpp ak fépp fuñ di nekk di ñaanal réew mi di jog guddeeg bëccëg suba ak ngoon di ko def di leen sant ci ndax ñoom ñooy li téye réew mi ba nu ñuy jaaxle jaaxle jaaxle ñaan yooyu rek mooy li nga xamante ne moom la ñuy mën a expliquer luy tax Sénégal du tabbi ci guuta waaye nag looloo tax tamit senegaal ay nit ñu màgg ay nit ñu baax yàgg fee dund yàlla wàccee leen fi muy xéewal ci réew mi te ba fu ñu toll nii ñu nekk fi wéy di ñaanal réew mi ba réew mi alhamdulilahi rabil alamin am nañu loo xamante ne àdduna yëpp moo ñu koy ñeewant moo ñu koy moo ñu ciy ñee bëggoon ko am te xëy na ñëpp amuñu ko bëggoon tamit balaa may jóge ci kilifa diine kilifa aada yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy def loolu sant bu baax a baax a baax nitu daara sant bu baax imam ratib yi ndax suma tuddee imam ratibu grand mosquée de Dakar mel na ne tudd naa imam ratibu mosquée jàkka yëpp ci biir Sénégal ak juma yëpp ci biir Sénégal waaye dafa am loo xamante ne ndam la ci ñun doomu Sénégal yi yàgg di jóge fii dem jongante ci tarig alxuraan indi ay raaya te loolu ñoom lañ koy sante tel que soit nag jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy am ci bu ñu dee jàngale alxuraan di ko def ci ay nit di defar nit ñi waaye di def ci ñoom tamit xam-xam weeru koor nag da di weer goo xamante ne weerug cant la weerug jàppalante la weerug suturalante la te sénégalais yàgg nañ ci jàppalante yàgg nañ ci suturalante te jàppalante googu la imaam doon wax sànq ci xutbaam ne mooy li nga xamante ne moom la diine woote te xëy na sax moo tax diine bokk na li tax diine jóg ndax jàppalante boobu mooy tax ku am jafe-jafe doo ko yëgee ni noo ko war a yëgee ndax xam nga ne am na koo xamante ne mën nga weeru ci moom ba mu sedd ci yow wala mu oyof ci yow di ñaan di ñaanal Sénégal di ñaan dinyan yi tamit ñu ñaanal Sénégal continuer di ñaanal Sénégal ndax fii la am amuñu feneen bu mettee fii la bu neexee fii la lu ñuy sàkk muy suñu njaboot fii lañ koy sàkki niñ ko jàppee nag ay nit teg ko ci suñu loxo ci jàmm noonu la ñu war tamit te waxuma président de la république waaye sénégalais yi fiy dund yëpp dañoo war a sénégalais yi ñi ñëw ëllëg ñu liggéey lu tax bu ñu ñëwee ñu xam ne Sénégal gii génération ba génération ku ci nekk def nga ci sa wàll ci jàmm ak jàmmal ba joxe ko ci leng joxe loxo yi ci joxe ko ci yeneen loxo ci jàmm ñooñu continue tamit di jàmm di di di di dox jàmm di wax jàmm di def jàmm pour Sénégal yi fi nekk yëpp mën a am jàmm kon maa ngi baalu ñëpp ak ñi ma xam ak ñi ma xamul ñi ma tooñ ak ñi ma tooñul sax di baal tamit di baalu tamit ñëpp ñi nga xamante ne tooñ naa leen ci li ma yëg ak ci li ma yëgul di baalu sax ñoo xamante ne tooñuguma leen te di ñaan yàlla mu boole ñun ñëpp baal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh